أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere borom bi subhanahu wa taala ba tey ñu toll ci suratul baqara di ci jël tey ñaari aaya aaya 283 ak 284 ñaari aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal ñeenti mbir bu ci njëkk mooy jawaazu axzu rahn mooy dagan gi nga xam ne dina ko dagan jël tayle ci tukki ak teew borom bi subhanahu wa taala li mu digle mooy su fekkee nit mu ngi leb mooy nañ ko bind waaye léeg-léeg comme ay doomu aadama lañ léeg-léeg mën nañu toll ci waxtu woo xam ne kenn du ko mën a bind kenn du am seede loolu nag dafa bari ay anam te buñ ñëwee ci nas bi ci texte aaya yi danañ gis loolu su boobaa lan lañu borom bi digal mooy kii leb nga am lu mu tayle mu jox ko ki koy lebal loolu dafa nekk loo xam ne tawsiqan min ad-daa'ini li daynihi day nekk loo xam ne day dëgëral ci kii leb li mu leb ndax ëllëg ak si biir bu ko waaji fayee ko mu ne ko déedéet bu waaji génnee lim ko tayle woon mu ne ko lii nag nit ñi xam ne kon kon lu wér la kon gis ngeen li nu faral di wax rek tàmm di wax ci waxtu yu mel nii ci bés yu mel nii mooy fokk ñi bàyyi xel alxuraan bi yàlla jox nu ëpp naa def rek téere bu nuy barkeeloo ëpp na koo def téere bu am barke la sikk nekku ci lépp am barke la waaye nag nekkul rek pour jullit bi ne dama koy barkeeloo teg ko ci bibliothèque am wala teg ko ci otoom wala di ko bind di naan wala di ko raay di def ci kanamam téere bi ëpp na loolu xool leen téere bi li muy wax ñëw ba ci bor nañu ut seede nañ ko bind amuñu luñ ko bindee amuñu ay seede mu ne nañu ut tayle na waa ji tayle loolu mooy tomb bu njëkk bu ñuy jëlee ci ay yi ñuy jël tey ñaareel bi mooy jawaazu tarku axzu rahni yenn saa yi tamit mën nañoo bàyyi dina dagan ñu bàyyi jël tayle bi mën nañoo bàyyi tayle bi yenn saa yi kañ lay nekk suñu demee ba am kóolute ak lu leer lu wóor ci kii ñuy lebal am ci moom yaakaar ku baax la du wor du indi benn problème su boobaa yéen ñaar rek ci place bu ngeen wéet nga wóolu waa ji bu baax a baax a baax a baax amu leen lu ngeen bindee amu leen ay seede mën nañoo bañ a jël tayle boobu ndax léeg-léeg di nga toll ci yenn nit yi fenn foo xam ne wala waa ji tekkiloo ne la sama montre ngi nii nga ni ko non tamit wala sama portable ngi nii nga ni ko déedéet lu tax parce que fenn fu ngeen toll ak wóolu gi nga ko wóolu moo tax yenn saa yi borom bi ne borom bi ne tayle boobu mën naa ñàkk loolu mooy ñaareel ñetteel ci aaya yi ñuy jël tey dinañ ci jële xurmatu kitmaanu shahada araam na nëbb témoignage képp ku ñu jàpp ngay témoin ñu woola soxlaa la loolu ñu la doon doyee araam na ci yow nga nëbb dëgg gi fa xaram wal qawlu bi zuuri fiiha wala nga ñëw nëbboo témoignage bi waaye da ngaa ñëw wax leneen fen waaye loo xam ne ñaar yi nga ne kii de jox ko woon dara loolu ëpp na loolu dafa xaram te loolu yàlla da kaa boole yonent bi da kaa boole ci min akbaril kabair ci bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi mooy nëbb seede ci la bokk comme ni ngeen ko jàngee ci xadis fi saxiix xadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñeenteel muhaasabatul abd mimma yuxfi fi nafsihi min alshakki walshirki wannifaq wa gayru zalik danañ jàng ci aaya yi nekk sunu kanam ñaari aaya yi ne jaam bi yàlla dina ko àtte li mu nëbb ci xolam ak ci xelam li mu nëbb ci biiram kenn xamu ko yàlla dina ko ko àtte ndax yàlla moom xam na ko nit ñee ko xamul waaye yàlla moom xam na ko yàlla da ci àtte jaam ci li ngay sikki sàkk te muy dëgg yàlla dina la ci àtte ci li ngay bokkaale te muy waroo bokkaale yàlla yàlla yëg ko xam ko ndax moom moo xam lépp yàlla dina la ci àtte waaye naafiq gi nga denc ci sa biir xol bi yàlla dina la ci àtte kon ñetti feebar yi ku yebo rek simmeeku ci ba set ndax yàlla da ciy àtte jaam ñi muy di sikki sàkk di bokkaale wala nëbb ak naafiq mu ne ak yeneen yoo xam ne tudduñu ko ci barab bi waaye yenn saa yi muy dal doomu aadama yi loolu yëpp borom bi subhanahu wa taala da ci àtte jaam min baadi awliya illahi wa hubbi li aadaihi mu ne léeg-léeg min buxdi awliya illah léeg-léeg nga gis ku bañ noo xarit yàlla yi nga gis ko xam da leen bañ ba pare bëgg nooni yàlla yi léeg-léeg nga gis koo xam ne waayu yàlla la xaritu yàlla la mi nga gis benn waay boo xamante ne kooku rek lay bañ a gis nga gis koo xam ne noonu yàlla la gaa yi jël ko teg ko ci kaw bëgg loolu yàlla daf ci àtte jaam ñi mbokk yi waaye wa bughd min al mu'minina saadiqin bañ yenn jullit yu gëm yàlla yi yu dëggu yi nga bañ leen loolu boo ko defee ci sa xol rek yàlla dina la àtte loolu moo tax ngeen gis waa aljanna du ñu dugg aljanna lu dul li nekkoon ci seen xol ci ay ñagg-ñagg yàlla daf koy génn ñu doog a dugg aljanna jàngeen aaya bi mu ne wa nazaana waaw fi sudurihim min ghillin léegi nu ñuy def ñu toog ci ay lal ci biir aljanna ci ay canapé ala sururin mutaqabilin ñu jàkkaarloo ndax léegi affaire yi dañ na bu ñu jàkkaarloo weer kanam yi day leer dañuy muñ même àjjana sax kenn du fa bañante waxuma laak nag fii ci àdduna yal nañ yàlla setal ci ñuy bañ sunu moroomu jullit wala sunu mbokkum jullit ñu koy bañ yal nañ yàlla dimbali ci loolu ba ma muñu dama ñoo daal jàng nañ ci hadis boo xamante ne yonent yàlla alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mu ne inna allaha tujaawizu li an ummati mimma xadasat bihi anfusaha yàlla dina jéggal sama xeet li nga xam ne seen biir moom moo ci am ay ñagg-ñagg ay tolof-tolof ay manqué-manqué puisque doomu aadama doomu aadama kese la léeg-léeg nga tarxiis ci sa kaw mbokk jullit yooyu nag borom bi subhanahu wa taala ku koy jéggal xeetu yonent yàlla muhammad la yenn saa yi sax maa lam tatakallam aw taamal yenn saa yi ci ñagg-ñagg yooyu am na ci yoo xam ne waa ji da koy xalaat ci xolam mais du ko jot a wax yenn saa yi mu xalaat ko wax ko mais du ko jëf yooyu noonu yàlla da koy jéggale soo ko xalaatee jëfoo ko yàlla da la koy jéggal soo ko xalaatee jëfoo ko yàlla da lay jéggal boo ko xalaatee kese kese yàlla da la koy jéggal boo ko jëful tamit yàlla da la koy jéggal mais boo ko xasee jëf waa ji rek moo la mën a baal loolu yàlla mënu la koo baal boo ko xasee boo xasee tooñ jullit ba mu leer ñépp na yaa ko tooñ yàlla dootu la baal bàkkaar boobu moom ki nga tooñ rek ngay ñëw ne ko baal maax mu baal la mbokk yi kon loolu mooy ñeenti tomb yu ñu jëlee ci ñaari aaya yi nekk sunu kanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير برم سبحانه وتعالى نينا وإن كنتم إن حرف لن لا إن حرف شرط لا في عرب شرط mooy bu fekkente ne da ngeen di def dara kon charte bi mooy loolu bu ngeen ko defee rek bu ngeen defee lool rek kon yàlla am na lu mu wax ci loolu mu ne wa in kuntum su ngeen nekkee ala safarin ci tukki kon yàlla li muy wax fii ku tukki rek war na la koo xam ne da nga tukki bëgg a jëf lii yàlla di wax lii war na la tegu na sa kaw wa in kuntum bu ngeen nekkee ala safarin ci tukki walam tajidu amuleen kaatiban bindkat amuleen ku leen bindal loolu benn la ci mais est-ce que ñàkk am ku bind rek lañu am ba bor bi kenn mënu koo bind amuñu ko bind kese lool rek moo tax binduñu ko déedéet du question ñàkk ku bind léegi am nañ waa ji mi ngi nii kuy bind ngi nii mais mënuñoo bind loolu tamit mën naa nekk laaj naa la laaj bi ah keneen am nañ bind kan mu ngi nii mais kenn mënut a bind mbir mi bismillah déedéet ana sama kado yi waay amuñu luñ ko bindee amuñu big big baa ngi nii mais mbir mi kenn mënu koo bind lu tax amuñu ko bind bind gis nga gis nga de big baa ngi nii bindkat baa ngi nii mais ba tey mënuñ koo bind lu tax amuñu kayit guñ ko bindee gis nga kon charte yi lii yëpp bu teewee nag comme amul lan mooy solution tayle tayle bi mooy ñëw waaw comme danga ko war a dafa la war a lebal ba ngeen ñibbi dëkk ba amuñu fuñ ko bind wala fuñ ko binde ngi nii mais amuñu lu ñu binde ki koy binde ngi nii mu ngi nuy yor xalima gi waaye amul këyit gu mu bindee wala der bu mu bindee wala fu ñu ko mën a nataal bind ko ba ñu xam bi mbir mi nañu tayle waaw waa ji lépp na génne dara tekki montrom wala mu joxe portable am wala wala wala wala wala loo xam ne kii lebal d'accord na loolu mën koo garanti xam ngeen ne loolu tax sax tey ci Sénégal problème bu dul jeexam fi ci ay nit ñoo xam ne perte nañ seeni oto seeni kër seeni seeni seeni seeni kenn xamul borom bi nee na bu fekkee da ngeen nekk ci tukki as safar tukki mooy lan alxuruju génn min ad daari nga génn sa kër wal balaat wala nga génn ci dëkk bi zahiran baidan ci lu feeñ nga sori ci benn distance bu soree sori su boobaa nekk nga ci tukki saa yoo demee fu ñuy wàññi julli rek tukki nga saa yoo demee distance bu ñuy wàññee julli tukki nga hmm? kon su la fa bor fekkee lépp fekk la fa dañ koy bind bu ñu amul luñ ko bindee amuñu kuy bind amuñu bindukaay amuñu fuñ ko bind su boobaa aaya bi mooy àtte bi mooy dañuy indi tayle bi mu ne wa in lam tajidu kaatiban bu ngeen amulee bindkat man yaktubu lakum ku leen di bindal aw lam tajidu adawaat wala amuleen jumtukaay bi jumtukaayu lan alkitaabata bind bi min dawaat amuleen encre wa qalam wala bic wa waraq wala këyit wa wa wala yii yépp su ngeen ko amulee ah kon farihaanun tayla bi léegi mooy ñëw farihaanun tayla bi ban tayle xalal yàlla de la yàlla du nit mu ne farihaanun tayle maqbuudatun bu ñu ngëp bu ñu ngëp lan mooy loolu tayle bu ñu ngëp mooy lan ah bu ñu ngëpp mooy yow liñ lay tayle non jox ma mbir mi quoi bañ dem kër ga am naa fa benn kii dinaa la ko jox est-ce que loolu wóor na yàlla mu ne li ngay tayle na nga ko ngëpp ci sa loxo waaw na nga ko ngëpp nii ba mu leer nga dugal sa poos dana ko war yëgale bu ñu demee nga jox ma waaye am naa gële mu ngi gànnaar jox ma ba weer bi dee te gisoo loolu wóorul gis ngeen yàlla mu ne na ngeen teg palaasu bindukaay bi wala palaasu kii bind amuleen ko lu ngeen di def mu ne kii leb na joxe garanti tayle ki muy leb ba dat ba jot bu dat bi jotee nga delloo si li nga doon leb ñu jox la sa la nga fa bàyyi woon ci sa garanti gis ngeen yi kay jarul dem police jarul woyu notaire jarul jarul gis ngeen yàlla sunu diine mais tey ngay gis gars yi dugg foo xamante ne daanaka sax lu bari nga ciy ñàkk ci alal tey boo bëggoon dem fii lépp dara rek kii dañ lay signaloo balaa nga ci bu fekkoon ne dañ lay jox cent mille cent mille après dañ lay jox quatre vingt mille ñu ne la dix mille yi papier timbre nangam nangam kenn xamul lekkaat la ba pare daa ci tiqaat yeneen cinq mille ne la assurance pour boo deewee. frais de xaw ma papier frais de ak tubaab moo bëri tappale moo tax gis nga ñi ñi lépp ay banque yëpp dañoo am problème. ñi leb banque ñëpp ci problème lañ nekk ay mbokk dañ may woo Europe ne dañoo leboon ay kër yuñ dëkk gis nga boo demee Europe nga leb kër da ngay liggéey ba dee di fay du jeex ndax niñ la ko defalee da ngay liggéey di fay ba dee xoolal ba retraite da ngay gis fi mu nekk ay tubaab yoo xamante ne dañuy fay ba dese tuuti ñu ñëw génn leen nangu kër yi ñu nekk ci mbedd yi di fanaan te xoolal ñooñu ba ñuy dundee ba léegi ñu ngi ñu ngi fay tubaab baaxul. loolu moo fa xew waaw ay nit yoo xam ne dañoo fay ba sonn te boo fayoo nit ba des deux mois wala benn mois fayoo dañ koy nangu nga xam ne ñi amuñu yërmande nga perte xoolal nag ñun suñu diine loolu moo tax nit ñi bu ñu xamoon lislaam xam alquran nangu koo dund rek kon dañuy dund àjjana ci kaw suuf parce que lu tax lii mu mun a nekk mooy yàlla moo nu bind moo nu xam yàlla moo nu bind ki defar lii ki defar lii def ci notice am wax lépp même courant bi li ñu koy brasser courant mu ne temps la voltage bi temps la fi mu nekk nii boo ko weddee nga ni ko waaye kii dafa yabaati courant courant la rek nga dem jël leneen lu lu mu la waxul ci voltage nga branché ko ci nu muy def day exploser sa kaw boo moytu sax yow nga al ko pourtant xoolal da nga kat rek da nga respecté fi mu nekk nii même chargeur bi mu la ne moo koy chargé bu bu sa bos lakkee da nga naan eh am nga chargeur u nangam doo ko ne am nga chargeur mu jox la rek nga ñëw branché foog nga jox ko no nombre bi nekk fii norme bi ci lépp nag même oto bi ñu defar caabi bi ñuy dugal pour taal ko du caabi rek bu la neex rek sa caabi oto na réer nga dem jëli sa caabi buntu néeg wala sa caabi buntu kër nga ñëw ne da ngay ubbi est-ce que di nga dawal bis boobu waaw lu tax ñu respecté noonu àdduna respecté tubaab bi lim ñu wax ñu bañ a respecté yàlla lim wax te mu leer naa ñi tey ñun ay jullit lañ lii mooy defar suñu dund mi ngi nii ñu respecté ñëpp lu ñu wax fi mu nekk nii ñun ñëpp même booy togg sax ñu ne ah li ngay togg de dànk moo koy xorom dànk doo tibb potu lii bër doo def doo ci def ñetti doom maanaam doo ëppal doo mànk suñ la nee lii la lii la yàlla nag léegi la nga ni déedéet ah walla moom na dem as na toog asamaan rek ñu bàyyi fii suñu àdduna ñu rek la ko moo tax du dem dund bi mu ngi nii xoolal fi mu nekk ni Sénégal boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi wut solution mais amaguñ walla dégg naa mouvement yaa ngi commencé réccu ay mouvement réccu ah kon borom bi nee na wa in kuntum su ngeen nekkee ala safarin ci tukki walam tajidu amuleen kaatiban bindkat wala jumtukaay bu ñuy bindee wala wala wala su boobaa mu ne farihaanun nañu tayle tayle boo xam ne maqbuudatun dañ koo ngëpp ci loxo waaw waaw bu mu nekk ba ma dem ba ñëwaat de wala déedéet nañ la jox nga dugal sa poos moo gën a wóor balaa ëllëg problème di am waaye mu ne fa in amina bu wóoloo baadukum lenn ci yéen baadan leleen dañoo wóolante suñu biir man ak yow xamante nañ ñu tolloog ñaar fukki at nangam ak nangam wala bokk nañ liggéey bi dama lay jox après bu weer dee nga raan ah fa in amina bu wóoloo fa in amina bu wóoloo baadukum lenn ci yéen baadan leneen fala haajata ila rahni kon léegi soxlaatul ñuy indi garanti soxlaatul lan moo tax soxlaatul loolu lan moo tax garanti bi soxlaatuñ ko lu tax parce que dama laa wóolu nga wóolu ma xam naa ne yow lu mu yàgg-yàgg am naa ci yow yaakaar gis nga de fa in amina moo tax ku ñu wóolu waroo tas yaakaar bi ku la ne yow dama la wóolu ah mbokk góorgóorlu boo doon lekk ay xeer sax bul tas kóllëre googu waaw parce que yonent bi nee na ku amul kóllëre yow amoo imaan laa amaana liman laa imaana lahu képp koo xam ne yow amoo kóllëre buñ la wóoloo doo ko respecté yow amoo imaan kon buñ la wóoloo alxuraan nee na suñ la wóoloo seen biir bu ngeen wóolantee bu leen tas yaakaar bi est-ce que dañuy jël kóllëre googu rek tënk ko ci xaalis ki romb kër yëpp dem takk fee benn xale bu jigéen daf ko wóolu wala wóoluwu ko ah xale bu góor bi romb kër yëpp dem takk benn xale bu jigéen dafa wóolu xale bu jigéen boobu wala wóoluwu ko xale bu jigéen bi dàq ñëpp tamit daal di ñëw ci yow dafa laa wóolu wala wóoluwu la ki la jël ci liggéey kaayam dafa laa wóolu wala wóoluwu la ah ki la jox këram dafa laa wóolu wala wóoluwu la gis ngeen kon kóllëre gi kon bu fekkente ne kóllëre googu ñu ngi koy sàmm waa ji wóolu la ba jox la dara même ki la abal sax abal ma ma bind nga jox ko waaye fexeel ba kóllëre gi bu mu tas am na ñoo xam fi mu nekk nii boo leen aboon kudd sax ñu ne abaluma la lu tax parce que dañoo yàgg di abale kudd seen kudd ñibbisiwul léegi ku ñëw ñu ne déewu déedéet ki- ki- lii rek la ñuy wax léegi looy dégg sénégalais yépp a yem xoolal fuñ toll foofu sénégalais yépp a yem même léegi Europe am na fooy dem ñu ne la sa pièce nga ni nii ñu ne sénégalais ñu ne ouh ça va le sénégalais là ça va loolu musiba la ñun fu ñu jëm ndax rek lan bëggee alal gu metti gu nu nekkee gi fi mu nekk nii moom ah yàlla bu doon yónni ab yonante Sénégal xaalis rek la koy jox ndax mission am si réussir xaalis rek waaw moom kay ay poche yu ngand la koy jox bu nee nii rek génne ay billets mu ne am gaay nag dëgg la kay yow kay loo wax dëgg la waaw waaye bu fi ñëwee naan ay qaala allahu taala dana ne sëñ bi gaawal dañuy tëdd waaw nga ment foofu musiba la kon duñ jël kóllëre gi rek aj ko ci xaalis mbokk yi nañ xool tey ñàkk kóllëre li mu tas ci àdduna bi li mu tas ci ay kër li mu tas ci diggante ay baay ak i doom ay mbokk ay liggéeyukaay ay nangam ah da ngay gis benn waaye mu ne la dama nekk Europe di liggéey di yónnee sama nangam ma ñëw gisuma dara xaas bépp lekk nan ko nga gis ku ne sama jabar nga gis ku ne sama jëkkër nga gis ku ne sama pap nga gis ku ne sama nijaay nga gis ku ne waaw fu ñu jëm kóllëre kenn du ko tas ndax yàlla dane bu nu wóoloontee fa in amina baadukum baadan fal yu addi gis ngeen fala indi waxul sax summa fal yu addi na indi allazi ki nga xam ne utumina dañ koo wóolu amaanatahu li tax ñu wóolu ko kóllëre gi na ko indi moom it ah li tax ñu xoolal nit tukki di la dénk alalam xëy na cëpp rek noppalu ñetti fan ne la waaw waaw damay ñëwoon nag léegi ñu jéem a xool ndax am na ñoo xam ne toll nañ ci mbon goo xam ne dañuy dem foto kër jàmbur ne la kii tabaxal naa la kër mi ngi nii pare na mi ngi nii nga ñëw ne ana kër ga ñu ne la ban kër keneen ne la kan fii ñu de Jóob la sant nga gis waa ji di xam kii di crise ñii jaar fa dof xam nga loolu dara gën ko dangereux tas kóllëre léegi na nga yaakaar ne yow affaire affaire bi jeex na bokk na di tax ci sénégalais yi tey seen mbir doy waar mooy àllaaxira lañ gëmul parce que ku gëm àllaaxira yu bare bari doo ko def waaye ñàkk gëm gi ñu ñàkk gëm àllaaxira ñàkk koo teg sunu kanam loolu jural nañu tey lii yàlla dina wax ci alxuraan pour ñu mën koo dund mënuñu koo dund fa in amina bu wóoloo baadukum lenn ci yéen baadan leneen fal yu addina indi allazi ki nga xam ne utumina dañ koo wóolu amaanatahu kóllëreem ah fal ya fal yuti dayn na joxe bor bi allazi bi nga xam ne utumina alayhi moom lañ ko wóoloo woon ba lebal ba lebal ko ndeysaan haysu taazarat alkitabatu walam yuuxaz daa'inuhu minhu ruhnan ala daynihi lan moo tax waa ji wóolu la mooy dañoo ñàkkoon bindukaay wala ñàkk bindkat wala ñàkk fun ko bind ñett yooyu bu amulee bindkat lu ñuy bindee fuñ ko bind ñett yi benn amu ci moo taxoon waa ji wóolu la ne la ah comme man ak yow kóllëre lañ séq yàlla lii la wax waaye wóolu naa la kon yow lii lépp bul ko tas gis nga bis boo reppee ba xët ko ama toog waa ji problème de du waa ji nga amal problème xam nga kan nga amal problème yàlla yàlla Omar fekk na benn sàmmkat ci àll bi mu ne waa ji waaw ñun de dañoo génnoon nekk ci liggéeyu yàlla bi dañoo xiif nag instant bi ñu toll xar yi lañ bëgg nga jaay ñu ci benn ñu ñu ñu ñu lakk ko fi léegi jëf jëfandikoo mu ne moom ma ko ne ku ko moom ne dañ ma koo sàmmloo Omar di ko seetlu ne ko boo demee nga ni borom xar yi till bi moo ko fàdd mu ne ko ana yàlla ayna allah Omar xëm xoolal sàmmkat yi noonu lañ meloon démb sàmmkat yi kon ñi nekk ci bureau yi noonu lañ waroon mel sàmmkat ki koy def mooy ku amul dara ngay dem di sàmmal nit ñi bu weer dee ñu fay la ah wala xoolal tey waa ji nga xam ne dañ ko jël def ko directeur société jox koy million mu xëy rek kenn xam kenn xamatul waa ji mu daw ak xaalis bi fes daw ñaata yoon ngeen koy dégg ñaata ñaata yoon ah ñu dénk mu xëy rek daw fif anam gisuñu ko ana xaalis ba yóbbaale na ko lépp mu dem loolu xoola Omar moom sàmmkat benn xar benn mu ne ko moom ma ko boo demee nga ni boroom xar yi tilli bee ko lekk mu ne ko ana yàlla allahu akbar ana yàlla baat boobu bu ñu ko tegoon suñu kanam ana yàlla suñu léppay réglé wu sa digganteeg say doom sax boo ci tegoon ana yàlla léppay réglé wu sa digganteeg sa jabar boo ci tegee ana yàlla léppay réglé wu wallahi sa digganteeg nit ñi boo ci tegee ana yàlla léppay réglé wu ayna allah moo tax yonent bi defar société boo xam ne ñaar dërëm day wadd fii juróom fukki fan ñu ko fii romb ñaar dërëm kenn du ko laal xoolal ñun tey jàkk ji ku fi bàyyi portable am am nga problème jàkk ji laa wax de xoolal loolu musiba la ayna allah ana yàlla alal jàmbur ji nga jël ana yàlla
xale démb xale bu ndaw presque ay sept ans moo far fi yëngal ci waay moo far deux cent dem ba si jox waaw ko di la ko xale mu ngoog gis nga nee na vendredi passé benn xale moo for 200 ñëw déclaré ko
xale bu ndaw parce que nit ñi diine rek moo leen mun defar leneen mun leen defar diine rek diine kese kese kese kese buñ jëlee nit ñi jàngal leen ba ñu nekk ay docteur am ay doctorat bu yeboon nag kenn ku nekk nit ñi am 20 doctorat te jàngalu leen diine fi mu nekk nii Sénégal milliards yi ngeen di wax ñi jàngul ñoo ko jël audit yi ñi jàngul la ah ah waaw xanaa kay kon ñooñu xanaa jànguñu xoolal audit ñu junni de du fukki junni de du million de du fukki million de la ilaha illa li ñu audité sax dafa ruslu ñaata inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay mili te du benn nit ah te du benn nit de nguurum lëmm la tàmbale ci président yi ba ca député ya ñépp ku nekk def lu mel noonu fu ñu jëm réew moom nu muy doxee du dox dañuy sonn rek courant bi day du dañ di coupé ndox mi kazalik lépp dana métti parce que nit ñi ñoo jaaralul mbir mi fi ko yàlla wax wax naa leen ko sànq li yàlla wax bu ñu ko defulee dañuy am problème wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka leen donc mooy suñu sauvetage mooy ñu def li yàlla wax ndeysaan xoolal yàlla yemul ci waa ji na joxe kóllëreem ki ko wóolu bu mu tas yaakaaram bu mu ko war waaye mu ne wal yattaqillaha rabbahu gis ngeen yow waa ji ñu lebal ba pare sonaluñ la sax jëluñu ci yow binduñu ko taylewuñu ndax wóolu gin la wóolu ragalal yàlla sa boroom dégg nga de fal yattaqillah yàlla dànkaafu la def waa ji ne ko ragalal yàlla mais bu ne woon fal yattaqillah est-ce que doyu na ragal yàlla waaye mu feddali ko rabbahu boroomam mi ko bind xam ne ëllëg dana taxaw ci kanamu boroom suñ ëppee waa ji doole wala mu mën koo gën koo saf làmmiñ wala mu gën koo comme ni gaa yi di def waaw yoreel ni téeméeri junni téeméeri junni yi nga fàq ci ñeent fukki junni wala ñaar fukki junni dem di ko neexalaati waaw ñu convoqué la police police boo romb dóor ko 5000 yegg ci biir ak sa toilette wax gars yi na ngeen def nag ça va jaajëfaay wa ah kuma wa ñu ne non non non garaawul dama ba suba rek ñu ne waaj eh eh an dama ba suba quoi tey amuñ jot parce que waa ji ku ñëw rek doxal na la 10 000 10 000 10 000 10 000 ñu ne la demal ñibbi bisa ngi ñëw wallahi kenn du la demal demal ñibbi dan laa lee nga ne ah ñu ne la jege sil moom mi doon tooñ yonent bi loolu la wax de bisa ngi ñëw yàlla subhanahu wa taala dana ana ki do kiñ doon tooñ mu ne maa ngi nii mu ne ko ñëwal ana ki doon tooñ mu ne maa ngi nii da ñëw leen yonent bi nee na yàlla day dekkil sa xar yi xar yi xar bi amoon béjjén daan mbëkk bi amul béjjén mu ne ko fayul su rabu àll yi fayoo ba pare rabu àll bu tooñoon beneen fayu bi nga tooñoon fayu ba ñu jeex takk yàlla leen nit ñi nag ñëw leen xam nga rabu àll yi après lu leen yàlla di wax kunu turaaba nekk leen suuf doomu aadama yi xool xool doomu aadama yi gis loolu nag yaa laytani kuntu turaaba loolu moo indi aaya ba ak a neexoon tey ma nekk suuf comme ni ñu defee rabu àll yi suuf waaye nag foofu moom loolu amul fa xam nga lu fay am fayal kii li nga ko yoraloon foo koy jële waaw ma ñu jël say tiyaaba say julli jox ko sa koor yi nga waroon jox ko asaka yi li nga doon jàng alxuraan li nga doon saraxe ñu tibb lépp jox ko mat na matul da nga koy fay suñ sëqee jox waa ji mu des ñu ne la jeexal nga de nga ne waaw ñu sëq bàkkaaru waa ji jox la foog nga fay amul ay yàlla nee na même bu doon sa yaay yawma yafirul mar'u min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi yaay juy wër doomam naan àqu njuréel bi danga ma koy fay àqu njuréel ngay nëbbatu sa papa di nëbbatu da ngay fay ba mu jeex kon nag du lii la jullit di ragal moo tax jullit bi di jub suñ la dénkee ñaar dërëm ñaar dërëm yi waa ji bu ñëwoon bu fekkoon ne ñaar dërëm yi daf ko utal couleur am na benn dëkk boo xam ne waa ji dafa ñëw di tukki mu ñëw ci benn waa yi ne ko dama la bëgg a dénk sama xaalis waa ji ne ko anam mu ne mi ngi nii konteel mu konte ba mat boobu xaalis yu weñ la ba mu nekk nangamu diinaar mu ne ko waa demal waa ji dem ba nangamu at mu ñëw salaamaaleykum ne ko waaleykum salaam sant ba mu ne ah sant ban yoo xamoo mu ne yow tey xaw ma la tey laa la mës a gis noo sant foo jóge xam nga ne koo nuyu mu ne la sant ba foofu am na lu fa nekk yow xamoo ma mu ne man kay xaw ma la maa la yow du dénk man mii yaa ma dénkoon loo ma dénk ne ko ma dara waa ji ne ko wallahi alazim dénk naa la mu ne wallahi alazim dénkoo ma waa ji ne ne dem ci buur bi boole ko man diw dama ko dénk sama alal bi may tukki ma ñëwaat xaw ma buur bi ne ko wax dama nga wokk ñu yónnee waa ji ñu woo ñu ne ko xam nga kii mu ne wallahi xaw ma ko kii daf ma bëgg a fitnaal xaw ma ko su ma dénkee na indi seede wala mu indi fur ko bind kii xaw ma ko doo doxi ba mu neex la nag nga ñëw man naan ma naa la fay buur bi ne ko waa d'accord yow kii da nga ko dénkoon alal mu ne wallahi ci jàkka sangam laa ñëw fekk mu toog ma konte sama alal yépp jox ko mi ngi nii ci jàkk mu ne tey xaw ma waaw d'accord dégg nañ yow yow nga ne yow kii mu ne kii xaw ma ko ah non d'accord eh ana garde bi mu ne waa kaay àndal ak waa ji eh yow àndal ak kii ngeen dem ci jàkk ji nga ko lebaloon nga won ko ko àndal ak sama waa ji yow yaa ko lebaloon mu ne waaw mu ne àndal ak garde bi ngeen dem ba ci jàkk ji nga ko lebaloon nga woon ko jàkk ci gars sol seen daal dem ñu dem ba ñu toog toog toog toog toog ba affaire bi yàgg pour bi ne sëët të të të të ñi yàgg nañ de mu ne jàkka jalaa sori ah kaay nga ne lan de jàkka ja daa sori noo xamee ne jàkka ja daa sori est-ce que dégg ngeen wax bi. waaye fii lañ ko bàyyi. fii lañ ko bàyyi mu toog. buur bi daa jël ki lebale boole ko benn gaar ne ko dama ngoon ko fi nga ko lebal mu dem affaire bi yàgg ñu tëx a ñëw buur bi ne ko waayow sa gaay yàgg nañ ne mu ne jàkka ji daa sori gis nga gis nga ja démb démb ñi nekk ñi nekk ay attakat dañuy muus ñaw mën laay te loolu dañ ci jàpp ay milliards nit keneen ki dañ ko dénk xaalis xaalis weñ la de waaj ñëw di ko jël si mu ne ko jinax yee ko lekk laa ko tegoon jinax yi lekk kees gaa ngi nii jinax yee ko lekk ah loolu doy na waar ni ah jinax yee ko lekk de mu ngi nii kenn jëlu ko jinax yi daal ñoo ko lekk daa ji dem wax ko buur bi ne ko man dama am problème diw dama ko lebal ba pare ma ñëw di jël sama xaalis mu ne jinax yee ko lekk mu ne ko waa demal mu dem ñibbi buur bi daal di woolu waa ji mu ne jinax yee ko lekk buur bi ne ko demal ñibbi mu ñibbi buur bi daal di yónni benn waaye jàpp lu doomam bàyyi ba doomam génn rek ñu jël doom ji mu ñëw ne buur bi diw dafa ñëw fii ne maa jël alalam te jëluma ko te sama doom daa réer gisuma ko mu ne ko ah est-ce que picc yi yóbbuñu ko mu ne ko picc yuy këf nit mu ne ko ah jinax yuy lekk xaalis kay dëkk boo xam ne jinax yi dañuy lekk xaalis weñ picc yi mën nañoo këf nit ñi mu ne waa léegi xam nga la la mu ne waa na indi sama doom ma jox xaalisam mu ne waa looloo wóor xam nga ñooñu ñëpp wóoluwuñu wóoruñu te nit day wóor borom bi nee na wal yattaqillaha waa ji na ragal yàlla rabbahu boroomam wala taktumu shahaadata bu leen nëbb seede seede bu ko kenn nëbb wa man yaktumuha képp ku ko nëbb fa innahu waa jooju aasimun bàkkaar kat la bàkkaar na qalbuhu xolam képp koo xam ne dan laa wóolu bul nëbb liñ la wóolu wala taktumu shahaada bu leen nëbb seede wa man yaktumuha képp ku ko nëbb fa innahu moom waajooju nëbb ko aasimun bàkkaar na qalbuhu xolam li anna kitmaanu min amalil qalbi lu tax nëbb lan moo koy def nopp bët mooy nëbb tànkay nëbb wallahi yàlla moo wax dëgg lan mooy nëbb xool moo tax yàlla ne xoolu waaji bàkkaar na waxul nopp waaji waxul bët waaj waxul tànk waaj képp koo xam ne dañ laa wóolu nga nëbb liñ la wóolu yow sa xol bi am na bàkkaar parce que xol mooy nëbb gis ngeen yàlla moo ne noonu alxuraan dafa am ijaaz fi yàlla di waxee day day néew ci nit ñi ñu koy dégg dafay am balaaxa da ngay xam ne lii du waxu nit parce que xol mooy mooy xam mooy nëbb moo tax yàlla mu ne kooku xolam am na bakkaar mu ne wallaahu yàlla ci aaya bi la ñu yem de bi ma taamaluuna ci lépp lu ngeen def alimun yàlla xam na ko lii aaya aaya bi doon jàngale lii aaya bi doon jàngale mbirum lan la ah mbirum xam-xam la xoolal moo tax fi mu ko jeexalee mu ne wallahu bima taamaluuna alim parce que jëflante la yàlla ne li ngeen di jëflante man alim man xam naa ko sayid xawa rahimahullah day wax ne bu ngeen di jàng alquran bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee yàlla bu waxee li ngeen di def xam naa ko li ngeen di def xam naa ko papa ji wax loolu doomam sax doom ji dina toog ñetti fan normal wala directeur société bu wax loolu liggéeykat yi ne leen li ngeen def yëpp xam naa ko semaine boobu yëpp ñëpp dinañ normal di ñëw 8 heures commissaire bu woowee policier yi ne leen li ngeen def yëpp xam naa ko policier yi nu ñuy def inspecteur bu woowee enseignant bi ne ko li ngay def yëpp xam naa ko enseignant boobu dina xëy ay fande yu normal kon ñun jaam yi bu ñu yàlla nee li ngeen di def xam naa ko lu nu war mbokk yi fii la ñuy yem incha allah ba sabli bi di ñëw ñu jël beneen aaya bi ci des asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh